dañ koy génne parce que si tamit dañoo fay xaalis dañuy def ragaluñu ko amuñu si souci loo xamante ne lii moo tax wala nangam mais juste que rek samay kilifa génn nañu àdduna sama turando sama papa. Hmm. ah yàlla na ko yàlla yërëm taxaare ko àjjana ak daal sekk ñoom ñëpp amiin suñu papa Mbaye Guèye ak euh, Boy Bambara ñoom ñëpp yàlla na yàlla yërëm taxaare ak tubaabu Dior ak Mor Fadam ak Père Ndiaga yal na yàlla yërëm te xaaral àjjana gën a kawe. ak Mita Ndiaye est ce que manqué la. Balla Gaye sa papa manqué nan la. waaw mais bien sûr. ko am ban moment ci biir combat bi nga sant ni fii Balla waroon na fi nekk. waaw benn moment de ba demee sax. sama sama euh, bi nga demee Las Vegas bi nga demee bu manqué Modou Mbaye yàlla <laughs> Las Vegas rek ba ma fa demee manqué na. Eh, ba ma ba ma yow eh, eh, as waroon ñëw quoi doo ma bàyyi ma wax ak Balla nga yow. ah bon kon sama yoon ah bon kon croiser les bras. <laughs> Amar yegale ban ban moment lañ la manqué. Mhm. manqué parce que fi nga daan dem di gis sa papa. Mhm. nga dem gisoo ko nit bi nga ko daan fekk fekkoo ko fa. Mhm. day métti. parce que papa dafa sori man quoi. bu ñu yàq bu ñu yàq waxtaan bi léegi bis ngoone Bombardier Bombardier yow nga ñëw si làmb ji sama xarit bu fi jooy de bu fi jooyee de mal dàq jooy de tey dama dama tey tey lu métti laay def bàyyi ma wax lu métti laay def gis lu métti laay def <laughs> a mm. eh, ah. <laughs> koy boole je l'ai pratiqué jooy mag di dee yoo ci boole yëpp day bari. ah non waaw tey day xaw a métti tey yëpp saa baax <laughs> eh, eh, eh. <laughs> naan la waaye tamit xam naa ko. Moodu kii dañ dem France dama lay nettal benn anecdote. Mm. man ak moom ñu bokk avion. yu ñu kii boo nu gisee sax danga moom laa faral. Mm. de dakaar à Paris ma ak moom ñooy dend maa koy defar formalité. maa koy defal lépp ñooy ànd gis nga bi may ñëw di indi film bi bi nu ñëwee ba aéroport nga xam ne film bi fi la war a jeexe te le caméraman bëgg a feeñ ci film bi Balla Gaye mii moo jël caméra moom laa fiis jëlal caméra mu jël ko ma ne ko filmé nu waa ji mu defaral ko mu filmé nu man ak moom pour wane man ak waa ji waa ji wane ni moom moo defar document bi yëpp. Mm-hmm. danoo yàgg mm. yii ma koy laaj. dafa am solo. ci mhm. carrière am. waaw c'est très dafa baax ci carrière am parce que kii premier combat ba dernier combat bombar Bombardier je suis là wax naa la moom ak Bac Seras rek laa reporté wul laajal Bombardier léegi man je vais croiser les bras. déedéet bul croiser les bras.